kon daal képp ku ci bëggati soxna balaa mbëggeel bi àgg ci mbëggeelu. voilà bala ñoo egg ci yooyu. il faut nga seet ko waaw parce que nit ki dafa am ay xaraf yu mu taxawee. Mhm. kii dafa nekk suuf gis nga suuf du ànd ak ngelaw. Mhm. da koy wàññi. mais léegi loolu comme nii nga ko waxee bisimilah yi nan nga ko waxee tënk. jàpp sir jabanam aan waaw diw jàpp ko diw comme Baye Mass bu soxla woon Rihanna rek nga wax loolu day jàpp. <laughs> baax na def ko. ah Rihanna mel ma ci Amérique. xam nga nag seex. Macky Sall kenn mënu koo ñaanal mu gañ ak réew mi te ay élection amut. comprendre na Messi kenn du ko ñaanal mu dugal bii te taxawul ci terrain bi. Mm. gis nga jigéen ñi man damay digal góor ñi ku ci am jabar da nga ciy ñaanlu téye mm. jigéen ñi dañuy lay ñëw noob la ba nga ne teg ñu lekk sab xaalis bàyyi la. Mm. man góor laa damay damay jàppale sama moromu góor yi. nga <laughs> eh, man nag ñëpp laa fi toogal de. am na jigéen ñoo xam na que góor ñaa ngi leen teg métit yu ëpp ah, di leen teg loo xam ne que fekk am na xeetu yoo xam ne que am na xeetu góor yoo xam ne lu yomb rek lañ bëgg jigéen bu am xaalis rek la ñuy ñu ñëw lekk li nga yor bàyyi la fa dem seeti kaneen teg daal waa bitim réew ñun ñun dañuy kalaame fu ne man moom nopp waaw boo amul jabar hmm. am koy topp te ngeen war a ànd te mën a ànd boo ñëwee ma noobal la ko ngeen ànd boo amee jabar nag moom nga xam ne sa jabar la moom boo ñëw ma la koy noobal xam nga ñu ngi waxtaan sànq ci plante yi. waaw dama ko fàtte woon plante yi ñu yor nii ñu di ci faj. waaw planting yi planting ñu defal jigéen ñi. man mën naa plantingal jigéen ñi. Hmm? ci plante laa koy jox mu di ko naan du mës fii mi ngi koy naan. boobu moom rat la wala. plante wala non du ma ko wax mais plante. mën naa cee plantingal jigéen. Hmm. ci ba léegi gis nga Cheikh boo amoon tey ku réer. xam nga yaa ngi may lay léegi lu réer luñ sàcc. waaw mais par exemple nit ku disparaître. boo wutee paanuk pepp. Hmm? paanuk pepp paanuk. kum neex kum neex nga defal ko sa bopp boo wutee paanuk pepp nga gas nii sa loxo ba mu xóot ba mu fee ba xóot. nga woo ko. ñetti yoon. ëf ko ci paan gi ne ko foo mën a nekk ñëwal. maasale ko ba maasaloo nga yóbbu ko fu siiw. comme tey bu doon fii dañ naan nga yóbbu ko Kër Baay Ñas wala nga yóbbu ko Masaalikul Jinaan wala foo xam ne daal mbooloo fay daje. soo ko fa yóbboo balaa 24 heures nga xam fu mu ne. sarxe ko fa joxe ko fa balaa 24 heures nga xam fu ne bu dee dee na day day nga yëg ne dee dana siiw maanaam fam ne moom. Hmm. dana siiw ci yow. dégg ko loolu sarax la boo amee luñ la dig. Hmm. par exemple ñu ne la suba da ngay dem ci fii nga déposé say papier. Hmm. soo wutee feuille blanche ak gura. ñaan ci ci gura gi. ah yéen tukkikat yi ñaan ci gura gi li nga soxla. maanaam ci ki nga ko soxlaa par exemple waa Sonatel kat nangam ak ëf. ñaan ko ci kayit gi ëf boole leen. fanaanoo ko soo xëyee boo ko sarxee. da hmm? hmm, nga am li ngay bëgg.